cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxaso woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am amuñ ci benn cas importé mooy maanaam bu jóge bitim réew waaye am nañ ci juróom-benn ak juróom ñi nga xam ne ay cas communautaire lañ mooy ñi jot ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee Touba am na ci juróom Mariste am ñeent yoof am ñeent ñett ci Daara ak Dakar Plateau ñaar ci Diamniadio Grand Dakar Liberté 6 Linguère Matam Mbao Mbour Ngor Nord Podor Richard Toll Rufisque Sacré-Cœur 3 Scat Scat Urbam ci Almadies am Amitié Bentali Bopp Fann Résidence Fatick Guédiawaye Kër Koki Liberté 4, Liberté 5, Mamel, Mermoz, Ouagouniaï, Okam, Parcelles Asseni, Pikine, Point E, Sud Foire ak zone B ñeent fukk malade ñi entré dans hôpital wér nañu bés ni de tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ñaar fukki malade ak juróom-benn ñoo réanimation juróom-benn malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb dibéer ñaar fukki fan ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar wér nañ ci ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn. ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi